yaar leen bu baax a baax gërëm leen ànd beeg Aladji Malick TV am na solo ànd boobee yàlla na jëm kanam ñu béggee leen bu baax a baax kontaan ci yéen ñaanal leen jàmm gàmm jàmm dem ak jàmm dikk ak jàmm ci gox yi fasantikoo yi nga xam ne moo nekk ci yëpp nag fu waaye man di gàmmoo ña ngi lay ñaanal ci barkeb uh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen dem ak jàmm dikk ak jàmm fekk fi xibaar yu wér te wóor yi nga xam ne moom lañ leen di gungee ñu commencé ko dëgg-dëgg ab sénégalais bi nga xam ne daanaka fi mu toll nii nag na ko ñëpp ñaanal jàmm nag ñaanal ko moo gën di wax ci moom waaye nag information yi rot ci moom mën na koo bañ a génne gone gi Real Madrid yollu nga roon na ko ab benn contrat boo xam ni xaatimoon na ko contrat bu yaatu ak offre yoo xam ne la tegon ci taabal ji waaye nag problème ba mooy génération foot ak équipe bii di FC Metz dañu am contrat boo xam ne football kat bu jógee ci génération foot directement lay dem ci FC Metz loole nag daanaka moo taxoon waa Metz daal di koy rejeté loole sax président Metz bi sax moo ko xam la di xam la ne ni moom mii di gone gi dana recev dana ñëw foofee ca France daal di dem ci équipe bi nga xam ne mooy FC ndax ñoom ñoo ñee contrat ba seenu contrat la ñoo koy coppati buñ ko dee coppati nag daal di koy téye foofee yëngalaat ko ba mu yëngatu door ko yóbbu fële ca euh, équipe bi la di Real Madrid bu boobaa man na ne wala beneen équipe bu ko soxla teg ca table ji lu ko jar waaye duñ ko falaxe duñ ko sarax saraxee dañ koy téye contrôlé ko teg ko ci temps ak agsi teguwul ci temps teguwul ci agsi Nicolas Pepe jóge woon na fële ca France équipe bu naan Lille dem fële nga xam ni mooy gënal suñu gën leen a xam ci Arsenal waaye moom mais gàcce la fa jógee ndax moom daanaka mooy footballkat bi gën a seer ci équipe bu ba waaye mooy footballkat bi nga xam ni daanaka moo fa génn ci zéro franc tous tasar la fa jógee dem réewum ki mu nekk pertement boo xam ni gars yi musul am Angleterre musul am euh, fële nga xam ne mooy championnat euh, bële ji Arabie Saoudi mbett mbetteel bu leen mbetteel goo xam ni daanaka am nañ ko ci bonbon bu neex bi leen Paris Saint-Germain bëgg a yollu nga rek ki li nga xam ni ah, daanaka moo nekk Marco Verratti dana fa dem 416 match ñeenti téeméeri match ak fukk ak ñeent juróom-ñeenti juróom-ñeenti titre am na ko ak lu toll ci li nga xam ne mooy juróom-benn coupe de France juróom-benn titre coupe de la ligue neuf titre trophée des champions ak ah, football bi nga xam ne daanaka ah, bokk na ci li gën a titré fële ca Paris saint moom mii di gone